lamb la waaw tubaarikàlla macha allah dama indi leen yàlla may ko ndam te du Aziz dem démb quatre personnes jóge na Guédiawaye ñëw bëri si yàlla may ñu ndam di ñaan yàlla yàlla suturaal ñu tey Papa Dia Alioune Seye Jor yàlla may ko ndam lu sedd guy. secret bi. liggéey rek ku liggéey fayeku secret du leen lul liggéey liggéey kese du leen lul liggéey voilà. démb am na lu xewoon fële ca 2S. sama xel yow rek la daj. si contrat bi. waaw waaw euh, gaynde gee xewle. kooku su xewle àdduna jóg Sénégal jóg Guédiawaye jóg ñëpp jóg ndax mooy làmb tubaarikàlla macha allah. Balla Gaye ah, rek xam nga ne Balla Gaye làmb yàlla la bañ bañ nangu yàlla la. sa xel la waaw tubaarikàlla yàlla na nu yàlla lafal